yaa cofaan mereere taa yaa barkeen si maa la wen yaa Kenzimalawe Nyanjango Zaramade Ya jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte eh, comme niñ leen koy defalee saa su ne fépp fu champion nekk ci làmb ñu dem jëli ko rawatina champion boo xamante ni di ngeen ko gëj a gis ci làmb dañuy dégg ay combat am eh, mais combat dafa mel ni bokk na ci mbër yi gën a naqaree wutal adversaire ci làmb ci moom la wala du ci moom loolu yëpp après ci biir waxtaan bi dinañ ci gën a waxtaan tey ñu dalal limousine mi nga xamante ni eh, champion la di dëkk Tëngéej limousine bi nga xamante ni bu dugg see ci làmb mu neex doo laajte ana mbër mi bu bàkkoo mu neex su bëree mu neex euh, combat bi nga xamante ni bëri woon na ko ak euh, mbëru Fass ba nu mu tuddati ka nga dóoral mu daanu King Kong bu faas euh, bokkoon na ci combat yoo xamante ne fa laa jaaree ne ndeket Père Birahim Ndiaye la mu doon wax bu njool yi waxee ndaama yi gën làmb ja ca moom laa ko gisee woon mbër maa lay nuyu di la siyaar waaw alhamdulilah Baye Djili maa ngi lay fay bu baax di sant suma yaay di ko nuyu di nuyu suñu waa kër yëpp di ñaanal suma papa yàlla na ko yàlla yërëm taxaree ko àjjana ah vraiment tamit di am contentement ci yow muy jiili ak bas sa caméraman ak sama copain sama doomu nday muy Assane di ñëw tamit fekk si ki nga xam ne moom laa fekk fii si boulangerie bi muy sama gaayen vraiment mu jàppale mu ci yu bëree baree bare bëri ñu koy wax euh, Lamine. waaw ko baax la tamit ku ma ku ma la ak sama gaay yëpp waaw ku si mel ni petit Ibou ak euh, Momo am di Sambu gaay yëpp maa ngi leen di bëgg baax samay gaay nag bu loolu weesoo tamit maa ngi nuyu baax fi mu dëkk muy Tëngéej waaw vraiment maa ngi gis jàppale bi maa ngi gis taxaw bi nuyu sama copin yi assan Thioune maam góor Baye Zall groupe bi yëpp daal nii maa ngi bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa dal jàmm waa kafe ga daal. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax ndax fi mu toll nii ku ne xam ne ni dëkk bi xat-xat bi euh, dëkk bi xat na ñu ngi waajal jëm Touba may waaj di ñëw Tëngéej nga xam ni sa yaa ma gën a woyof ne ma noo bàyyil ma ñëw unité 26 su ma ñëwee ci boulangerie bi euh, dinañ fa toog yaatal ko waxtaan sa relation boulangerie bi lan la. waaw alhamdulilah fii suma sees la fii suma suma suma gaañan moo fi nekk suma xarit waaw fii suma sees la. su ma jógee entraînement fi laay jaar su ma nekkee Dakar la plupart fi laay jaar moo ma yor sama lépp moo may jox ndekki añ reer tout si boulangerie bi xam nga kon moom suma gaañal la kon rafet na su ma amee émission mel nii ma jaar fi ñëw toog ci boulanger am waxtaan ak moom quoi hmm, wax dëgg yàlla nuyu ñëpp nag ñoom ramaak ñi fi nekk ñëpp. Hmm, hmm, limousine pour ñi la ñi lay seetaan te xamuñu dëgg dëggi euh, limousine mooy kan sa làmb kañ nga ci dugg si ak ñaata combat def ci làmb. waaw alhamdulilah limousine benn booy rek bu nekk Rufisque nekk Tëngéej di góorgóorlu comme ay moroomam nekk faak ay magam nekk faak ay rakam waaw di ñaan yàlla nag nekk champion comme ni ñu nekkee champion waaw ñaan yàlla li yóbbu làmb fu sori fu ko nit ñi xalaatul ci biir Tëngéej waaw limousine benn booy la boo xam mi ngi ci làmb def treize combats dix victoires trois défaites waaw. treize combats dix victoires trois défaites. mais yow parcours bu garaaw nga def ci làmb ah. waaw macha allah bëri na gaa di tëldi di fii nii ay six combats six victoires six six défaites la ñu am wala six victoires trois défaites te teewul ñu leen ak ci kaw mais xam nga làmb tamit dafa metti kumba am ndey la ak kumba amul ndey tey da am ñu xëcc la la amoo ko la jàppale ñu bàyyi la suuf waa noonu la demee quoi mais nag ñun dëgg yàlla ñàkk nañ jàppale benn essence ci côté làmb mais tax ñun tamit. woo woowuñ doomu aadama yi pour ñu dimbaluñu ñu pour yéegal ñu mais nu ñu dimbal di ñu jox combat ñi na suñu bopp pour carboter parce que ñun ay bulldozer lañ dañu war a ñëw fekk suuf si carboter pour yéeg ñaanuñu benn mbër ndimbal nag mais ñu ngi wax ci wàllu promoteur yi ñuy tëggal combat ñu mën a accès si ñu soxla ci mbër yi pour bëre ñoom parce que yow leer na leer ni man ñi may bëri ni du ma ak ñoom. appel yi moom fi mu toll nii boo tourné émission ba pare dina taxar naa sa moom boo bëggee boo bëggee bëre fii nga toog ba jox la avance loolu moom leer na. waaw parce que yaa ngi malet quoi <laughs> te dégg naa ci ay promoteur nga jógee ci promoteur booba déey la ma bëgg na sa combat de loolu dinañ ci gën a xuus yaatal ko ba mu yaatu mm, waaw baax na kon maa ngi lay déglu rek mais en tout cas moom li may wax mooy mbëri nañ bëri suñu biir ñun duñu ay ragal ba mbëri yoo xam da ngay tegee gauche à droite làmb ji lu neex fi mbaxalu xeer la ku ngeen la kon nañ jàppante suñu biir ñu bëri ku nekk nga wane li nga war a li nga li nga entraîné ak li nga liggéey mais ñun boo ñu xoolee macha allah ni ñu tolloo war nga xam ñi ñuy bëreel nii wala ñu ñu comparé du ñu ñoom mais boo gisee xaw a yeex ci làmb wala xaw a guddee ci làmb li koy waral mooy ñu war a bëre yow du ñu bëre ak yow mais pourquoi pas nañu jox ñu ñu war a bëre ñu bëre ak ñoom. Euh, léegi boo ma doon fàttali ci carrière làmb ji euh, ñan ñan ak ñan ak ñan nga daan ak kana la daan. waaw man dëgg yàlla ñu ma daan fàtt am na suñu ma fàtte mais ñi ma si jot a jàpp King Kong Baara Ndiaye King Kong waaw États-Unis euh, Ousmane Ngom Baraya ak kan sax fàtte naa bari nañ. mais man li ma jaaxal mooy ñi ngay tudd ñëpp mooy ñi nga xamante ne ay yëkk lañ ci làmb kenn bu leen a yëgal. Euh, ñu ñu boox la ko daal. waaw boo xoolee booy remarque bu bu booy remarque bu géejawaay muy bëre Gris 2 bëri nañ ay trente et quelques minutes te man def maa moom sax cinq minutes ma pamti pamtee ko sànni ko fële comprendre nga mais dañuy xool xam ni kii waaw leeru gumba la mais duñ la nangoo jël dañ lay xaw a puus pour paas la kee paas la amul sens nañ ñu boole ñu war a bëri ñu bëri ak ñoom. oui. tey ba mu doon limal sa nattaangoo ci làmb ñoo xamante ni ñoom ak limousine combat bu neex la amateur yi bëgg nañ ko bu buñ ko tëggee tukk sa bënn saa saañ ba réer lay doon arène nationale foo sànni mbàtt day tak yàkkan lay doon. waaw xam nga tey ji man yàgg naa lancé appel xëy na Malick Niang bëggul bëreeg man wala xeeb na wala am ma fu ma teg mais ñi bëgg a man ñi xam samay morom man te Malick Niang ñemewul mais ñi ma ñeme nañ ñëw mais góor nañ bëre <laughs> nañ war a bëre. mais pourquoi bébé Saalum góor a soog dañu war a bëri mais lan la làmb amul ay teggante ëpp ñu ma ci dayoo du ci fit du ci public du ci doole du ci dara. mais mbër déey na ma ma ma wax mu ne ma limousine tapette la parce que ñu ngi doon dox sama combat maak moom mu bañ bañ na bañ na ba daw na ba sonn xamatuma lu ma koy wax muy booy fay booy fay ne danga koy daw rek. nee na yow tàppeen nga image boobu bas euh, dañuy dem nga dugalal ma booy fay li mu wax ci limousine su ko defee ñu seetaan ko dellu siwaat sëñ Bas nañ dem dégg nga li mu wax moom wan na ne carrément yow ñeme ko parce que dafa mel ni turu yu nooy ngay gën a wër parce que yaa ngi nee na yoon yoon bëgg nañ seen combat yéen ñaar mais nanguwoo bëre moom lan la looy daw ci booy Faye. Boy Faye dégg naa li mu wax <laughs> Boy Faye dawuma ko ragaluma ko xëy na man Boy Faye li ma def si làmb sax def ko ci làmb Boy Faye kombaam du mën ak moom kombaam moom ak Cobra la woon. Cobra man bu Pikine booloo Pikine booloo hmm. mu jël avance Cobra joxoon nañ ko avance dem ba si biir. am na sama benn gaan xam naa ko bu baax kooku lañ kii après kooku moo yàq làmb ci mu ne Cobra du moroomu Boy Faye yaa ngi dégg booy fay li may wax nii sama benn copain mu ngi nii toog sax Lamine. zéro bi ma promoteur bi di woo maa ngi Ziguinchor ma ne ko ah man de affaire Boy Faye lañ may wax mu ne ma jël ko mu ngi nii. promoteur ban la bu gàtt bi. yow xam nga moo moo moo. kay promoteur boobu la. ma ne ko man pare naa ku dul boobee sax pare naa pour moom yaa ngi dégg ma ñibbisi si après ñu woo ma expliqué ma ma ne ko man pare naa owal sama manager ngeen waxtaan yaa ngi dégg ba léegi nii man déggaatuma ko maa ngi leen déglu moog booy fay xaw ma booy fay moo daw xaw ma booy fay mooy wër leneen mais ku dul booy fay booy fay man su ma demee bay tëdd booy fay yow la tiim ni micro bi neex rek moo tax muy waxu limousine. fi mu toll nii limousine su ma la ne woon takk avance booy fay mu ngi nii nga yóbbaale ko Tëngéej léegi nii. <laughs> ma si ñëw si sama boulangerie bi reer sama reer bu baax nga naa ma ay Boy Faye nangam. parce que promoteur boobu jamaïcain la jamaïcain nee na avance booy fay euh, fi mu toll nii mbëri dañ koy teggi loolu moom loolu man bokk na ci li ma gën a yëpp. ñu boo yore numéro am woo nga xam ne man bokk nga xam ne man bokk ma si nga xam ne man bokk ma si nga xam ne man bokk ma si ñi koy ragal. Lamine Samba léegi de. <laughs> Euh, limousine fi mu toll nii euh, ma fas yéene dugal euh, promoteur bi parce que moom dafa mel ni avance jam jamaykin jamaykin ah, jam maa lay nuyu bu baax a baax a baax mbaa yaa ngi am jàmm. promoteur bu mag bi yaa ngi wasaare en direct. reporter euh, yaa ngi wasaare. yaa ngi làmb de jam àdduna ñu ngi lay dégg. Ah, waaw damay bañ nga nga ba xeer parce que àdduna ñu ngi lay dégg. <laughs> jub naa de jamay kay bàyyi sa ngay dem waaw tey dama dalal dama dama dalal limousine ñuy waxtaan ci combat bi nga xamante ni euh, yaa ngi ko doon démarche diggante mag booy Faye booy fay nee na limousine daf ko ragal avance bi yónnee nañ ko ko ba sonn mu daw euh, léegi nag comme yow yaay promoteur bi yaa yor sa cëggalu guy booy fay euh, ak limousine bëgg nga ko wala bëggoo ko. Euh, hmm. di la nuyu di nuyu maa lay fay maa lay fay bu baax jëm yi. di nuyu mbokki internet yi wasaare. yi wasaare wasaare TV rek jam da ngaa dooj nag wasaare Instagram sax waaw waaw la ko wax wasaare fépp ñëpp di nuyu tamit seen directeur Babou Mbaye hmm. di nuyu sama xarit ATM Seck hmm. sama goro borom États-Unis maa ngi koy jaar bu baax hmm. waaw di leen di nuyu Baye Bass sama sëriñ di leen nuyu yow Ousseyn Diop Fatima Dia personnel bi yëpp paase waaw ngeen ñëpp maa ngi leen di jaar waaw di wax comme ci li nga wax rek am na solo. Hmm. comme ni nga ko waxee ñëpp xam nañ ne Boy Faye ak beneen combat ci lañ newoon. Hmm. bi mu demee noonu ñu ñëw euh, nekk ci Boy Faye ak euh, limousine moomu toog. Hmm. limousine nag bu ñu dégganteeg moom def nañ ñi mbër bi war a def ndax boole nañoo ay kilifaam ñi nga xam ne ñoo yor léppam. waaw bi ñu leen tamit waxtaan nañ ci avancé ak ñoom. waaw ñu am luñ ñu wax. ñun tamit ñu am luñ leen wax. biñ leen waxee nag estafam ñi ñu boole woon ñoom noo nañu nañ leen may dinañ waxtaan seen biir buñ paree dinañ ñu revenir booba léegi dégguñ leen. Hmm. kon staff limousine ñoo ne na leen déglu euh, bu ñu paree dinañ la woo ba tey dégguwoo leen. mooy nanaa am maa ngi ko déglu moom su ñu waxtaanee ba pare dina ma woo wax ma. maa ngi koy déglu nag waataguma ma boobu léegi. mais jot ngeen waxtaan ci kase wala déet. waaw waxtaan nañ ci kase. Hmm. laaj na ma xam nga lamb moom mooy leen wax rek. Hmm. waaw moom dangay ngay wax da ngay waxtaan ak nit ki ngeen tënk. Mm-hmm. wax na ma wax naa ko. Mm-hmm. tënk na wax ma ma tënk delloo ko jox mm-hmm. na ma waa léegi dëgg nañ la ñu ngi waxtaan suñu biir suñu paree dinañ la revenir. waaw foofu daal laa tolloo ak ak ñoom. Euh, Boy Faye moom pare que moom mu ngeeg sa avance fi mu toll nii kon Limousine moom. bu mais mais mais Jamaïcain. oui Limousine oui Limousine. Jamaïcain. naka waar ngeen. nag waa ñu ngi nii di góor góor naka coono yi ah mais yow man xam nga xam nga xam nga déggante nañ whatsapp vocal man ak yow déggante nañ tamit appel waaw bi nga waxee wax ak man man tamit wax naa la si ñi ma la war a yebal léegi bi ñu waxee yow tamit ñoom wax wax nañ la prix yow wax nga leen sa prix waaw mais xam nga am na lu ma la waxoon si beneen promoteur bi bëggoon sama komba ak keneen ak Kalmundur

ko neexaat wax ma lu may dégg maa koy def. waaw baax na amul problème yaakaar naa moom affaire yi moom ku bëgg fu mu faral ak ku bëgg foo wettali. waaw. leneen bu ndëbi du leen boole. baax na amul problème. waaw yow tamit ñu ngi lay encouragé gis nañu liggéey bi tamit ndax mbir moom xam nga comme ni may wax rek. Mm. làmb ji da nga cay boole bi leneen. waaw dafay jamono bi corona bi. dëgg la amul. mu ngi dëgg ñoo far ñoo far ñoo far jàmm yi kay. jaajëf la amul problème nga mën a <laughs> loolu di la may noonu la demee yow daal bàyyi nañ ko solo loxo rek après waxtaan ak ñoom maam ñaaw ak ñoom Konaté ñoom Maalik rek. coow jubul coow jubul am problème dinañ la woo. <laughs> télé mën naa tas. jaay na amul problème merci Diam. <laughs> jeex na ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci sa disponibilité. xale bu baax nga vraiment. waaw jërëjëf yow tamit ku baax nga da nga xaw am benn <laughs> rek <laughs> ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Jamaïcain mu nekk promoteur boo xamante ne vraiment xale la ndaw la am na jom euh, mais am na ambition aussi euh, xam na li mu bëgg ci làmb te am na gëm-gëm boo xamante ni jàpp na ni war naa mën a yóbbu loolu ci làmb mais est-ce que gis nga booy fay ni mu toll biceps si ni mu toll nga xamante ni fi mu toll nii nee na làmb simple yi moo fi téye loxoom bëre dóor bi moom ku mu jël ku jël avance am dóor mu daanu rek. d'accord <laughs> non man dama wax si waxu noo xam nga waaw mais man du ma wax si moom kooku du maag moom yàlla xam na ni du maag booy fay te bu ñuy làmb boole woon baat bi génn suñu diggante nga xam du maag moom. dañu bokkul man ak moom. yaa ko moom daw laaxu la parce que daw laaxu moo tax mu jóge ginnaaw raay dem ay parcelle ak ay dóor dóoraat nit ki loo gëm dangay toog sa gox. du dëgg moom lan lay jóge ay ginnaaw raay dem ay dóor dóoraat ci lu mu bokk. yow yaa ngi juddoo parcelle du kii yaa ngi juddoo ginnaaw raay nekk foofu ba am fa li fa am lépp di jóge foofu dem ay parcelle pour lan ay dóor dóoraat. est nekkul parcelle la dëkk mu gën koo jege. non dama ni la moom xamee wuñ ko parcelle bu ma dugal si waxu booy boobu quoi. daw na fi daa daw làqu man booy bi moo ma njëkk ci làmb fuuf. ah dama man karbate ba egg fi ma egg si fii nii du ma sax moroomam yaa ngi dégg kooku ay wax mën nañu boole nii rek mais dama ne tuñum gëlëm. lang na waaye laalu suuf. loolu wolof bu la. te cookeer. mënta réer moroom si diggu mbooy de waaw demee. mais fi mu toll nii bokk na ci làmb joo xamante ne sénégalais yi bëgg nañ ko wala askanu làmb képp kuy dund làmb xam na ni ñaari naataangoo ngeen ci làmb te bu ngeen duggee combat bi dina neex ko xam limousine xam ambiance am rek ci làmb eh, loolu làmb na mën nañ ko booy fay tamit noonu fi mu toll nii limousine est-ce que yow am nga envie tooyal sa xaftaan fi mu toll nii. waaw man man loolu rek laay wër man loolu rek laay wër mais booy fay man nag moom làmb du nekk du nekkul làmbul bu neex. làmb soof lay doon parce que dama koy duma daan ko ñu ne kii moo ko man du xeex du bëre du fecc du def dara. man soo xeex yow non xeex kan. taxaw ñu samp ci na loolu moom ko ci làmb gi ku ko fi mu toll man pànk laa man pànk laa de man pànk laa dégg nga lu garaaw laa lay wax booy fay bu ma waxoo booy fay dugal ma si ñeneen détail ñu ma war a bëreel mais du ay booy fay booy fay mën nay wax ne ak ñoom jamaïcain parce que lekk na avance jamaïcain mais bi ah, ñu bi ñuy waaye jël beneen mbër boobu Cobra moom mais maa ngi fi woon la moo tax jëlu ma. nee ko. moy hmm, lan. moom Abdou Lahad njaay moo ko yor Abdou Lahad yàgg na dos ñu ko mën a moom muy rasu ku dul booy fay sax man xaaruma ko ku dul booy fay sax man tëddwaale wu ma ko mais dama ne la man ñi ma war a bëreel du ay booy fay booy fay ban làmb simple la tey làmb simple bi ay dañ koy bëgg ci lamb simple bi mu naan ay tey làmb simple. day jël ay compétition booy fay booy bool numéro 2 laa gis fan yii passé mu daan ko Grand Yoff fekk yële métti na ay nangam. waaye bu ma dugg si cadre boo yooyu waaye duggal sama émission dama bëgg wax Boy Faye mënul bëre. xamul dara lox rek maa ni man wax wax moom moo si toog mais Boy Faye du dara du ma moroom ay booy Faye jox ma ñu ma war a bëreel waaye. naaw Garga Mbossé la nekk de te Garga Mbossé toll nii ñoom ñaari ngi ànd di liggéey. lu yàlla xam na ni Garga Mbossé manuma yow mi hmm, Garga Mbossé bu ma dugg si dara yàlla xam na ni manuma barke Seydina Mouhamed Garga Mbossé manuma xam nga man sama problème mooy chaque sos en son temps. yaa ngi dégg man du ma état bu instant yi nekkuma si état bu garga. mais boo ma déggee garga bu déggee lii dina am lu ko metti quoi dina wéet jooy bu demee ba limousine naan garga mboose mënuma. mënuma mais garga mënuma garga mënuma man góor yàlla mbër muy takk ngemb ci làmb ji mënuma xëy na nag bis day ñëw ëral am ñu daan la. limousine. Garga Mbossé nu mu mel ci làmb nga jóge ci yow ku ne attaqué nga ko attaqué nga Malick Niang attaqué nga Cobra non attaqué nga kee nu mu tuddati. Euh, Bébé nga nga tegaat ci Boy Faye Boy Faye attaqué romb ci moo la attaqué moo la bëgg moo la bëgg mais bëggoo. ma bëreeg moom mais ku amul la fa gën. Hmm, am dafay sës nii rek agum mais soxlawu ko de. yàlla xam na ne booy fay man ak moom làmb sax boolewuñu. entrée la wala plat de résistance wala lan. booy fay du dara du entrée du plat de résistance du dara bëgguma moo dugal si cadre booy fay xam nga lan la raxas ndab tànn na dëpp. comprendre nga ndab yi bu tilimee nga jël ko raxas dëpp loolu mooy booy fay même bu ma duggal si cadre booy fay. lan lañ la dee ci làmb fi mu toll nii confiance bi ngay dégager dafa mel ni beneen limousine laa gis par rapport ak bi ma daan gis. waaw xam nga benn saa yi yàlla suñu borom day def benn affaire six day teel dab doomu aadama. Mm-hmm. léegi daf ma dab ci âge bi naan âge de puberté na tudd wala. âge de puberté âge de <laughs> léegi daf ma dab ci âge de puberté loolu moo tax doo mën a gérer succès sa comprendre nga léegi nag da ngay puberté asamaan su doon wàcc sax wala da ngay jàpp ne sax war nga mën a kii lampe bële yéey ko wala nga dégager lii doo yëg sax tàngoor sa comprendre nga dañuy toll ci âge doo mën a gérer succès mm. mais nag ah, nit moom da dox ba si yàgg dëgg yàlla ñooy la xëyee kaay nii ak nii ak nii la nit di doxee ma ànd sama grand yu baax su mel ni Lamine asan samay copain ak samay nit su ma mag Cheikh Ibrahima ñoom ñëpp vraiment toog waxtaan teg ma ci oxa teg ma ci yoon loolu la mais du dara mais yàlla xam na ne ñii ñuy lim ci làmb ci barke Seydina Mohamed ku ma ci manul manoo ma hmm. yàlla xam du ci xeex du ci bëre du ci dara te booy fay mi ngay wax nii yàlla xam na ni laa la maa la ko si wasaare bu làmb dinoon ba taxawaat tegaat ko dama koy fël sànni billaahi wallaahi bokkuñu bokkuñu benn yoon. dina garaaw làmb ju neex a gi man pànk laa wala xamoo pànk xamu pànk. pànk la xamu luy pànk yow. déggoo olof xamu luy pànk baatu olof moo wax nga tekki ko. du pànk moom moo réer ci àdduna. waaw pànk doo dégg ngi dox ba si ne kii ko pànk la. waaw ah, man damaa pànk. pànk mooy koo xamante ni maanaam du wan baat ku ko woo ci loo ko wóoree. mu wuyu si la mooy pànk rek. pànk baa ngi nii toog man damaa pànk du ma moroomu ñu yàlla xam na ko. lébu moom kenn du ko woo ci xeex moom moog doomu pël a rek kenn du ko woo ci ratub soow de. yàlla xam na ne man ak moo booy boobu bëgguma sax ñuy wax ci émission man ak moom tos ko du ma ak moom man xoolal man gisuma dara am du bëreem mais yow jii yaa ngi bëgg dugal ci loolu wala mais yow doo ma wax ci man ñoo war a bëril. man wax nga mais man combat bi ba gën a bëgg sa digganteeg booy fay bokk na ci xam naa ne euh, sa digganteeg Malick Niang Malick Niang gaw ma ni dina la jël parce que. Bébé Saloum si combat bu jaadu la. te Jamaïcain la mujjee bëreel sax. Bébé Saloum xam nga li nga wax tey ñu ngi ñëw jox ko ay franc franc lu neex lay wër pour lan franc lan moo tax mënul ñëw bëreeg nit ñi. franc lu mu fi def. franc nee ma mbër bu mbër bu agressif bu mool bii la jàpp dëpp ko. nee ma diw la. Serigne Ndiaye 2 waaye ban Serigne Ndiaye bu ñu daan Serigne Ndiaye 2 day léegi. Hmm. waxuma ay waxu ñooñu. bi ñu dajewaatee Kaolack nu ko booy bi def fële ko sànni. waxuma loolu dama ne ñi ñeen di jël ay yoon lañ war a bàyyi bàyyi jool nit ñi seen bopp ñu bëre. yow Franc bi muy jël Bébé Saloum ku la joxoon avance bi nga jël. kan man guddi ñu toll nii su ma namee jox benn avance benn mbër ma koy delloo barki alxuraanu kariim ma dem bay waa bay bay jimboo jimboo laay dem bay mais da ngay font rek. la ilaha illallah Léopold nag yow bii fi mu toll nii pàcc gi ngay woote mu ngi ci yow. man nag kaay wax la de damaa wër damaa wër Sénégal de. léegi fu nit ñi xam-xam naa fa. président non du question président sax. Ah, mais dama ne la damaa wër Sénégal fu nit xam fu ne man xam naa fa. président Ousmane Sonko lay àndal chaque jour fu ma gis président dinaa ko gis ci wetam euh, seen diggante yee ñaar lan la da ngay politique wala da ànd ak moom ngir liggéey. man ànduma nga pour liggéey ànduma nga pour dara man Sonko xaw ma ko woon xamalewu ma ko woon yaa ngi dégg sama benn copain moo tax ma xam ko muy kii toog sama grand bii muy lamin moo tax ma xam ko moo ma oo boole ma moom may liggéey mais dama ne la du politique du dara xam nga la bëgg te yàlla tax sa dégg nga ma lay wax. yaa wala moo la xam nga nit ki soo ko bëggee rek fekk mu bëgg la. ngeen mën a nekk nit ki soo ko bëggul rek. wala ma ma bëgg la yow te bëggoo ma mënuñoo nekk il se comprendre nga waaw mais du loo xam ne dañ koy topp wala dara mais suñu borom moo dogal suñu diggante man ak moom par yàlla def nag ma bëgg ko te yàlla rek tax nekk suñu ko nga gis ci moom yoo xamante ni euh, mën na ko yor ab njiitu réew war na ko mën a yor. yan jikko laa gis si njiitu yu mën a. maanaam lu Ousmane Sonko jikko yi nga xamante ne neex na la ci moom te bëgg nga njiitum réew bu yor loolu jikko boobu. maanaam Ousmane Sonko yorul jikko yi njiitum réew sax hmm. lu leer laa lay wax yorul sax jikko yi njiitum réew yàlla xam na loolu kooku mu jikko ji mu yor. paase hmm. paase na ay njiitum kooku àdduna la war a jiite de kooku warul jiite Sénégal de. maa ngay politique daal. non c'est que ma campagne fi mu toll nii non jikko ju yor du jikko yi seen kooku kooku jikko ju mu yor pour war a jiite jiite réew Sénégal dépassé na ko maanaam kii balaa nga doon xam qualité am dëgg tubaab yi yor ko wala ñeneen nag ñeneen si ngay xam qualité ban qualité la pour mën a jiite réew. man de politique xaw ma ci dara waaye changer système bi moom miin naa ko ci moom. waaw mais xam nga mooy li ma lax léegi rek c'est que xam nga yow wasaare yow jiili yow da nga bëgg a dugal politique ci affaire bi wala yow da ñëw pour andi mi làmb. dama laaj kat parce que temps yi su ma la wooyee di la limousine woo nga ni tey maa ngi fii ànd ak laa jàpp benn tey moom xam naa ne yàllaa ko dogal li mais jàpp la dafa jafe. non moo tax damay profité noosu ci yow. wala <laughs> dara déggal muy sànni xeer mais ak loolu yëpp déggu ma la ak loolu yëpp du sama coobare du sama dara man li ma la waxee rek parce que wax naa ko ci yu bari man bi ma koy xam xam xamee ma ko pour question ay politique wala dara jëmm ji toog yaa ngi dégg moo tax man ma xam ko si may dégg mu nekk nag nit ku baax kii nii Lamine boo ko gën bu yoroon iPhone bii yàlla xam na ne nga gën ko soxla mu jox la ko yàlla xam na ne du question li ma toog ay manager wala dara wala wala wala dara wala wala wala restaurant mm. yàlla xam na ko ku baax la moom nag moo ma boole ak doomu aadama boobu ma xam ko yaa ngi dégg ma xam ko boobu depuis boobu ba léegi ay at la avant muy nekk député ba suñu jonn yàlla juñ toll nii xëy na nag nit ñi léegi lañ commencé gis engouement bi te suñu borom mooy dogal loolu. Mhm. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax ndax wolof daf ne lu duuf ci nag bi xajandoowul ci cin bi euh, parce que xam naa ne li ñu bëggoon wax yëpp day yaatu mais liggéey site internet temps la te doo bëgg temps bi yaatu ba tënk euh, ñu baree bare mais maa ngi lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité. maa ngi gërëm waa boulangerie bi ñoom ñëpp góor jigéen yaa ngi dégg mag ndaw mais tëgg yàlla man Lamine aw ma fayam parce que ku baax la ku ñu yéene jàmm la yàlla xam na ko biir tëgg Dakar laa la wax nekk naa fa soxlawu ma lekk soxlawu ma naan soxlawu ma dara moo koy defal kon man soxlawu ma leneen yaa ngi dégg mais nit kii dafa nekk nit ko xam lu baax la moo waral tey ji ma ne la xaar ma rond point 26 ñu dajee ci boulangerie bi ñu def foofu émission bi waaw mais bu loolu weesoo may nuyu waa Tëngéej yëpp maa ngi nuyu waa Tëngéej yëpp di leen sant di leen gërëm su nag fi ma dëkk muy joor ga di nuyu sama yaay bu baax di ñaanal sama papa yàlla na ko yàlla yërëm daxare ko àjjana di nuyu suñu papa ji ñu fi desee mooy Mouhamed ak Cheikh Ibrahima Sëriñ sama rakk Badou. ak waa kër gi suñu soxna yi fay sëy yëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi nuyu ñëpp di leen bu baax di leen ñaanal di nuyu tamit sama xarit yi may àndal ku su mel ni Assane Thioune fu ma dem mu ngi fekk sama ginnaaw lu muy neex muy naqari tollu war naa cay guddi yu tàng yu nett yoo xam ne nii moom laa daan gis muy ñëw di si jàpp bu baax a baax tonte suma rakk la di nuyu tamit sama waa koñ ñëpp sama fan si kële bi ñëpp maa ngi di nuyu di nuyu nag bu baax a baax a baax waa Kajoor waa Ngeewul ak waa Mboro di nuyu waa Casamance sama copain sama bàyyiwuma kenn ba Guinée Bissau bàyyiwuñ ko ñu ngi nuyu ñëpp. àdduna maa ngi nuyu bu baax di nuyu nag bu baax baax a baax sama waa koñ. Mm. di sant bu baax di gërëm bu baax di wax na gars yi leen lancé appel bu baax fii suñu boulangerie la mi ngi ci rond-point 26 bi. Mm. au Boulouf mm. fii xeetu lekk boo gis yaa ngi gis ni ma tol wala xooloo ma. macha allah ah, fii laay yafloo <laughs> fii laay yafloo